ahousubillahi min aseytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bu ngeen gisee jataay bu am solo bii mooy màggalu Serigne Touba xaadim rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu am ci ay taxawaay yoo xam ne incha allahu taala bu ngoonee ubbiteb exposition bi nga xam ne Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine moom lañ ciy wane ay jaar-jaaram aw dundiinam lépp ngir julli di mën cee jàng bu baax a baax euh, diwaanul muridin di daayira bi nga xam ne moo lëkkale buntu kër Cheikh Mouhamadul Moustapha yi ak mbooleem ñi nga xam ne dañuy yëngu ci l'islam te dëkk fii ci Sénégal taxawaay yooyu nag tax ba ittihaadu atbaahil xadim di taxawu ni wa tamasuki bi diinil xawim di fédération de groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba amal ci ay jataay yu am solo jataay yooyu mel na ne mën nañ cee wax benn panel boo xam ne dinañ ko am ci bisu màggal gi ci ginnaaw tàkkusaan ci base bu mag bi nga xam ne mooy base bu wilaya bi suñu jógee am nañ benn conférence boo xam ne boo am importance la Serigne Mbacke Abdourahmane war koo def ngir waxtaane ci taxawaayu kilifa ak diina ci société bii nu toll waaye la ko jiitu yi xam ngeen ne buñ ne suba la màggal ci ngoon éducation culture am nañ ci jataay boo xam ne danañ ci wane ñi nga xam ne ñoo doon jàng ci école yi ay diplôme yu ñu leen war a jox ngir muy mandargaal seenu nekkit ak seenu doxalin ci école yi nga xam ne si ahmadou mbacke gayna farma taxawaloon na ko ngir di xeex ak réer ci ndaw ñi wala ak ñàkk yar ci ndaw yi loolu it insha allahu taala da ngeen ànd ak ñun di dund loolu lépp jumaaje ci bis ba am na fa jataay bu am importance boo xam ne buñ masa bu ñu xëyee danañ fa dajee njàngum alquran njàngum xasida njàngum lépp loo xam ne ay murabbahaat la te jëm ci jullit bi ak boromam loolu it kilifa yëpp danañ ci ànd ñu jàng ko ci biir jumaa ji ci biir daara kaamil jumaa ji jàng ci ñeenti koñ yi jàng ci mihrab bi ngir bu ñu demee ba war koo xatmu kilifa yi danañ dajee jàng ko ba pare liir fa discours boo xam ne Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ko njëkkoon a bind ca màggal gi nga xam ne si ne moom la njëkk màggal njëkk koo woote fii ci Touba. communication bi dana taxaw ci jéem leen a wan yëpp muy taxawaayu commission yi commission sociale. commission relations extérieures commission éducation culture ak mboolem commission yëpp dund yi ñu am ci biir danañ ko tourné yëpp wan leen ko incha allahu taala kon ñu ànd xool image yi nga xam ne moo nekk suñ kanam lu mel ni installation base ci la ñuy njëkk jaar ci mboolem commission yëpp bu soobee yàlla lépp di ngeen ko gis ci suñ si yi incha allahu taala jarfal ndaxa Moustapha ñaagaat ne leen bi kalaami soog a ñaagi ngaay jërëjëf Serigne Salla Gueye ci ouverture bu am solo boobu comme ni mu ko waxee rek dañuy continuer ñëw ci installation jaakaarloo kenn ci jëwriñ nii kon dañ koy jox rek mu présenté wu Serigne bi bisimilah. salaamaaleykum ne def yéen waa communication Moustapha Kara mooy wax ak yéen du premier adjoint commission installation bagage yi nag fi ñu toll comme question mooy. wax dëgg yàlla ñu ngi ci liggéey bi démarré nañ depuis ay trois jours 4 jours tey suñu ñeenteelu fan boo xam ne ni tàmbali nañ liggéey bi ci effectif boo xam ne nii jóge nañ ci ci section yu yaatu bokk na ci Touba yi ñu fekk si ak effectif bi mu indi ak jurbel ak Taïf ak Louga ak Kaolack ku ci nekk indi nga ci membres yi nga xam ne ni ñoo taxawal base bi. gis nañ ñi nag liggéey bi moom wax dëgg yàlla népp lu ñu daan duggee moom ni ñu ci duggee ren jii moo ëpp solo ndax ren la temps bi gën a néew ci ni ñu baase ndax fi mu ne nii jàpp nañ ni daanaka rombuñu 4 jours yoo xam ne nii li ñu war li daan takk ci ay 6 jours wala ay 8 jours takk nañ ko ci 4 jours yii wax dëgg yàlla fépp foo xam ne nii war nañ faa takk baase rek effectif bi ñu yor takk nañ fa baase. effectif bi nag am na différence toll na ci ñi nga xam ne ni ñooy ñekk ci installation échange euh, bi bis ni ki tey ñi toll nañ ci 41 personnes daanaka mën nañ 41 personnes yoo xam ne ñoo toll ci ñoo ñoo toll ci effectif bi nga xam ne ni teew nañ fi donc ñëw nañ daal ci ak positif boo xam ne ni yaatu na lool liggéey bu am solo boo xam ne ni ñëpp ci kilifteef gi nag mi ngi aju ci Serigne Bassirou Mar bu Diourbel moom moo ko jiite Moustapha moo ci itam mooy troisième action bi mais wax dëgg yàlla membre yi moom ñëw nañ liggéey bi am na solo yaatu na daal ni ñu ko bëggee woon daal defe naa ne amee nañ ko nu kawe suñu njort wax dëgg yàlla. yaakaar ngeen ne base bi fi ngeen ko def mbooloo mi nga xam ne moom la ñu yëpp ak. période bi nga xam ne période nawet la ndax yaakaar ngeen di ngeen ci di ngeen ci am lu mucc ayib daal maanaam. loolu sóoraale nañ ko soorale nañ ko parce que boo xoolee modèle baas yi ñu baas xam nga ne sóoraale nañ ndox mi malgré ko baasu takk la mais teewul forme bi forme forme baas bi sóoraale nañ ndox mi wersi nañ baas yi nga xam ne du téye ndox fermé nañ ci bii ba ñu daje yàlla dogal na am nañ dimension baas yoo xam ne amul espace digganteem ak tib bi. baas yi tafu nañ direct ci tib yi nga xam ne nii jàpp nañ ni bu dee taw nag moom dafa na ndox dafa naqaree téye mais foog nañ bu dee taw tamit du indil ay jafe-jafe yu bari loolu moom am na bu dee espace bi tamit yaatu na espace bi yaatu na yaatuwaay boo xam ne li ñu daan baas dimension bi ñu daan baas baas nañ dimension bi toll noonu parce que ça fait 60 nangam mètre 60 sur 35 baas nañ ko loo xam ne ni mooy espace bi ñu daan baas buñ ko yokkut dara wàññi ñu sàqi ko bondoxo yaay jën wu rëy yaate mburi di seen mbaar mi naay yaa boole gàllu ya boole jën yël yépp car antal ximaadu li ahlina yaa am wilaay yaa boole gàllu ya boole jën ye ci comité d'organisation jërë ngeen jëf comme jóge nañ ci comité d'organisation organisation ci installation ñu ngi fii ci commission communication ci sous commission sonorisation jàkkaarloog jëwriñ ji kon dañ koy jox rek mu présenté wu kon sëriñ bi bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah ginnaaw bi ñu leen nuyoo salaamaaleykum wa rahmatulah ginnaaw bi ñu leen nuyoo yéen ñëpp man la Dieng section Mbacke Bawol si màggal gi sous commission bi nga xam ne sonorisation bi. bi nga xam ne moo jëm si waaju màggal wàccaayu màggal gi ma jiite ko. jërëjëf Serigne Moustapha kon dañoo bëggoon a xam rek kañ ngeen tàmbali liggéey bi. waa ñun ñu ngi tàmbalee tey jii ñu ngi tàmbalee ginnaaw lu jiitu tey am nañ cinq jours loo xam ne am nañ ko la ñuy tàmbale diggante ak màggal geeg léegi ñu tàmbaleeg léegi am nañ cinq jours lañu war a def moo xam ne mooy jëm sonoration yi ndax bëgg wàcc mu gën a gaaw a pare ndax bëgg nañ balaa tey ji daal ba kenn ku ne li nga war a dégg nga dégg ko ci mi nga xam ne moo jëm si génération basse bi man nañoo jàpp ne bi ngeen tàmbalee liggéey beeg léegi tay lay tay lay mat juróomi fan pour bëgg rek mu teel a pare balaa màggal gi ñu bëggoon xam rek euh, ban effectif ngeen àndal ak ñaata section la waaw ah, effectif bu ñu àndal bari na ndax mën nañu à peu près ne am nañu mat 15 personnes yoo xam ne mooy effectif bi nga xam ne moo jëm ci mbiram sonorisation bi am nañ ay mbokk yu jugee kees man mi di wax yéen jugee mbàkke am na ñoo xam ne tamit ñu ngi jugee Taïf ak ñu nekk Touba gi daal ñoom daal mooy effectif bi nga xam ne moom la ñu si liggéeyu sonorisation wu màggal gi. jërëjëf kon ñu mel ne àndut waa Touba waaye ànd nag ak section ak effectif boo xam ne bu am solo la dañoo bëggoon a xam rek ban capacité la sonorisation bi nga xam ne moom ngeen am fii ban capacité lay tolloon. waaw capacité bi nga xam ne am nañ ko si matériel bi nga xam ne moom la ñu fas yéenee liggéey ci màggal gi capacité bi am na doole lool ndax. côté boo mën di féetee muy si penku bi ak sawu bi plus de six kilomètres ak foo mën di nekk si dëkk bi di nga dégg li nga xam ne mooy li nga xam xew ci base bi nga xam ne ne fi la defee seen sonorisation fi lañ seen xew-xew di ëpp lu muy nekkee waaw côté boo mën di féetee nag si dëkk bi plus six di nga dégg. Mhm. ci foo xam ne yaa ngi toll di nga dégg ci ban kañ ngeen yaakaar ne di ngeen maanaam mbooloo mi dinañ dégg baas bi sonorisation bi di dox ban. waaw jàpp nañ ne tey jii moom à partir de 16h dinañ pare ba képp koo xam ne ne 17h fekk na la fi di nga dégg sonorisation bi tàmbalee jëm sa kaw. jërëjëf kon mu mel ne ñoom pare nañ daanaka ndax nee nañ fii ak 16h ku ñëw rek ci baas bi di nga dégg animation bi nga xam ne moom la sonorisation bi di def kon Serigne Moustapha jërë ngeen jëf. xulafaaw yi xaw naa araam yaaram du gam-gam leeg sagan yamu leen i baay yamu leen i baay yamu leen i baay delelala du gam-gam leeg sagan yamu leen i baay yamu leen i baay sigil te weytoo madru yi bu wér te bul faale ka wuy seek farje ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw ne ña daawoote ña daawaate Moustapha